salaamu asalaamualeykum waa Dara lu Ndindi ak Sénégal ñu ngi leen di nuyu ci turu bis bi bis bii nun noo yore teranga yi ndax euh, bernde ndaw la ko yore ndaw lay première fois bi nun noo ko yore may sàkku ci mbooloo mi fi liggéey a ah, képp ku fi yore jur di ko jaay na nga ko woyefal ah fois li di li woyefal jur gi mooy li tàmbali ci fanweer ba ci un million am na fi bari na nag bari na gëléem bari na xar bari na bëy lu ñuy jëfandikoo bari na ganaar lu ñuy jëfandikoo ci màggal gi daal mi ngi fi. mbét seen min moon mbét yettin moon nee na mi ngi leen di nuyu mi ngi leen di jaajëfal si liggéey bi macha allah màggal yoodi nee nag franchement préparation màggal bi kontaan na si trop ndax rafet na macha allah ba tëdd ni amen nee na ndaxte bi mu ñëwee dalal ngeen leen aussi mi ngi kébi confiance nee nañ am nañ confiance yi liñ indi fii macha allah ay dara mankaay nee bi ñu wax dëgg yàlla dara manquewul aussi nee na nag yi jaay nañ leen. gileem yi njeyam. nee na gileem yi ñu ngi leen di jaay. baali njeyam. nee na xar yi ñu ngi leen di jënd. mi ne ma di macha allah mi beltim. nee na ñoom franchement kontaan nañu waa Mauritanie. yàlla waññi barke. na yàlla yokk xéwal yi. la tu Tuubaa waxoon ne dañuy tàmbalee ci ganaar ba ci gëleem daal lépp mi ngi fi waaye nag man mi nga xam ne maa jëwriñ ji dama leen waxoon ne leen liggéey bi bu tàmbalee nan ko woye fal lu ci waay di jaay nan ko woye fal am ca dara ka ka ka jënd xolam sedd te képp bépp client bu ñëw na nga na nga def direct ak borom jur bu bul nangu entrepreneur bu la kenn entrepreneur boo jëndee boo jëndee ak borom jur gi borom jur gi jox la lim lay jox euh, nga jox ko si li ko war a jox. ànd mu Médiatine Chenon. nee na mi ngi gërëm di remercier aussi waa télé bi seen liggéey si màggal bi. waaw nee na kontaan na si trop ɓe ɓen kolli amen yeeso nee na bi ngeen ñëwee aussi yaatal nga ñu ngi rafetlu liggéey bi ɓen kolli amen komi komi komi komi yimɓe maɓɓe nee na ndaxte aussi kontaan na si waa Sénégal wane ne Sénégal ak Mauritanie ko gootum nee na wane ne ñu ngi wane ne waa Sénégal ak Mauritanie benn la macha allah haydara man kaani nee na wax dëgg yàlla dara manqué wut yimɓenen jala nene ñi ngi fo ñi ngi ree ɓen jala ñaama ɓen cooda ɓe mhm. ngala ay probléme nene wax dëgg yàlla ñi ngi jënd li ñu indi lépp ñu ngi koy jënd te ñu ngi koy jënd a prix amuñu benn problème képp ku def lu baax da nga am lu baax ndax sëriñ bi moo sëñ Tuubaa moo waxoon ne nañ ko sontale bi nun nag noo ngi ci jant gi xëy na lee daan ci wut lu ñu yóbbu jaboot ak lu def addiya waaye nag nan ko wayfal màggal gi moom kom ñu ngi ko waxee rek ñoo ñëwoon fii pour wut sigileem incha allah sax an noonu lañ koy defee di ñaan tam suñu borom yàggal ñoo ko defal njàkk koo teewe sa borom jàppandal mbir yëpp incha allahu taala comme ni ko sëñ bi waxee woon rek liñ ci def rek fas yéene tënku ci ndigal rek lañ ci def incha allahu taala lii tam dañoo mënta wax ci télé waaye loolu moo ko sabab rek. noo ñaan ci jëmmi sëñ Tuubaa nag ndax murit moom ñaan rek la am noo ñaan ci jëmi jëmi Serigne Touba ci suñ sëñ Mountakha di sun bunt ci Serigne Touba mbas mi yàlla na ko sëñ Touba Mbacké dàq mu dem ci bis bi kooku daal la ñuy ñaan ci bis bi waaw nun ñëpp nag man wax len leen bi affaire bi jubee dajaloo naan dem ci commandant bi Alla Ndiaye mi nga xam ne mooy chef du village suuf si moom la sëñ Touba moom la sëñ moom la moom la sëñ Fallou jox suuf si jokkoon na ma ak moom dajaloo nan dem ci commandant bi <coughs> commandant fedd li na laxasaayam guddeeg bëccëg du noppalu jàmbaar la wér wér wér boobaak léegi sécurité noonu dara yokku fi noo ngi ñaan nag li des ci li des ci bés bi li des ci bésu bésu màggal gi yàlla na ci suñ tuwaa dàq ay képp ku fi luubali yàlla boo yàlla boo jëm si fii li ñuy jaayit jar te xam ne bis la ba nga xam ne bisab yokkut dong la lépp lu ci waaye def da koy gën a mën rek tey tamit da nga koy dalay gën a yokkal lu baree baree bari wax dëgg yàlla ndax kii may àndal nii sama wëllëre sama xarit la chaque année bu nekk këram lay dal waaye chaque année bu nekk maam moom ñooy ànd ñëw fii ci gilem yi xool gilem gi ci gën a mag gilem gii ngay gis nii moom leen jënd te gilem gii nii ñu ngi ko jënd 700000 moom leen jënd te année bu nekk tamit noonu lañ koy defee te utuñ ci dara tamit lu defar ko ay berne rek jox ko mbokki taalibe yi ba jeex tàkk ñu delluwaat Fuuta gën jóge woon ndax Fuuta lañuy liggéeye waaye lépp tamit moom mbégte la xéewal la tawféex la ndax année bu nekk tamit dañ ko gën a man yàlla ñu suñu borom nangul ñun ñëpp te defal ñu ay xéewal defal ko mboolum jullit